kon fukkeel beeg ñaar moo di Shuaybu alayhi salaatu wasalaam ah yaa ngi jege seet yi Shuaybu nag kenn ci ñeenti yonent yi ñu wax ne arab lañu ci la bokk xam nga yonent yëpp ñu ngi bokk ci bani Israël waaye mu fastaroone yi juboo nañ ci ne ñeent yi ñoom arab lañ Shuaybu ci la bokk waaye ñu ci des yëpp ci bani la bu la neexee sax nga noté ma ma la ñeenti yonent yi ñu arab lañ Huud waxoon nañ ko Saalax waxoon nañ ko Shuayb boo ngi nii mooy ñeenteel ki mu jëmooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Huud Saalax Shuayb yii ñoom ñeenti yonent yi ak Seydina Muhammad sikk nekkut ci ne ay yonent lañu waaye ci arab lañu bokk am na ñeneen ñuy wax nag ci sharaakat aadee wallaay Muhammad rek moo mas a nekk yonentab arab ndax li yàlla wax ne masuñoo yónni ab yonent wa ma anzalna ala qawmihi min baadihi min jundin min alsamaai wa ma kunna munzilin ñu ne xaw moom mooy kan ñu ne yàlla wax na ca gannaaw gannaaw yi ca gannaaw itam ne mosuñoo yónni ci sa min qablika ma arsalna mosuñoo yónni benn yóninte min qablik ñu ne waaye xawmu la wax foofu nag ñoom dañ ko tuddee ne xawmiya la arabiya la wante déedéet xawmiya xawmu foofu moo gën a tuuti xawmiya la arabiya maanaa Quraysh la waxoon ak Makk maa yónni ci yéen ab yóninte boo xam ne yatlu alayhim ayati loolu waa Makk moo doon xawmu foofu waaye wér na ci histoire Huud ndax ñu ñiñ ko yónni arab lañ Saalax arab la ndax ñiñ ko yónni arab lañ ndax wax naa la fi ñu dëkkoon Saalax mu ngi dëkkoon Saudiya Shuayb boo ngi nii moom itam ana fan la dëkk mu ngi dëkk Shaam ñii ne ma ngi dëkk Yaman ñii ne Shaam waaye ci boor yooyu la dëkkoon waaye dinaa la comme moom lay jàng dinaa la gën a préciser fan la Shuayb bu dëkkoon yéen yàlla Shuayb boo ngoog fan lañ ko yónni woon yaman yaman fan la nekk mu ngi diggante Hijaaz muy réewu Arabie Saoudite ak Cham mooy dëkk baa ngi tuddoon Madiyan wala réew ma mu nga tuddoon Madiyan Madiyan qaryatun taqa bayna Cham wal Hijaaz qarib min buhayratu Lut sorewut ak Jordani fi l Urdun kon nag yonent Yàlla Shuaybu alayhi salaatu wasalaam kon Cham lañ ko yónni woon ci dëkk boobu ñu naan Madiyan mu jege mu nekk diggante Xijaaz ak Sham ma ngi nekk ci weti eh, Buhayratu Luut ci Jordani kon ñi nga xam ne mooy nitu Shuaybu yi al ustaaz Asil Tabaara wax na ci téeréem ne Xafiif Abdul Fattaax Tabaar nee na Madiyan moomu ñu tuddee dëkk ba ña ngi ko askanee ca madyan ibnu ibrahim al xalil kon loolu euh, daan ci dellusi si euh, talaata ci suba incha allahu waaye ngeen takk rek ni ñoo ngi tollu ci Shuaybu muy yonente fukkeel bi ak ñaar fan la Shuaybu dëkkoon madyan fan la madyan nekkoon ma ngi ci weti Jordani ci buxeeratu Luut diggante Xijaaz ak Shaam kan moo doon Shuaybu kenn ci ñeenti yonente yi arab yi la euh, Oustaz Assane Diouf ñu ngi lay gërëm ci machine bi di gërëm ñi ñuy déglu yan yàlla def ci nun dégg ak topp def ko ci yéen kon ñu jox la rendez-vous talaata incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi mbokk yi ñuy déglu tey déglu rajo Walfadjri FM 99 kaddu gi di bàyyi ko fii ci Sacré Cœur ci Ndakaaru noo ngi leen di nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu ci suba si di leen ñaanal jàmm di sàkk ci yenn fu ngeen toll ngeen di ñu ñaanal jàmm yal yàlla boole ñu jàmm may ñu ay xéewal yu bari te suturaal ñu. sàmm ñu sàmm leen sàmm njaboot gi te barkeel leen yàlla yàlla musal ñu ci ay yiwandeelu ak ayu àddina musal ñu ci tës tës yeeg xew-xew yu naqari yeeg bëkkante yeeg dee yu bette yeeg feebar yu garaaw yeeg yal ñu ci yàlla musal te musal ci mboolem ñu ñuy dégg ñu ñaanal ñi tëdd ci lali hôpital yi yàlla may leen jàmm saafara leen ci anam ak wér di ñaanal ñi tëdd ci kër yi itam yàlla saafara leen ci anam ak wér di ñaanal ñi xëy ak ñi liggéey la barkeel seen yëngatu ak seeni i dal te may leen am xëy di ñaanal way tukki ñu àgg ci jàmm te yàlla may leen li wut delloo si leen ci seen njaboot te waxtu wi ñu tukkee ñu ngi ñaan yàlla mu wutu leen ca njaboot bi yi ñu ngi woon ci eh, qisasul ambiya mu di benn tamhiid muy benn téeñ benn lal lal boo xam ne dañ ko doon téeñ rek balaa ñu àgg ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam loola moo taxoon nu indi indi leen fukki yonent ak benn ba taxaw ci fukkeel bi ak ñaar te mooy Shuaybu alayhi wasalaam mbokk yi jon nañoo tàmbali ne Shuaybu kenn ci ñeenti yonent yi ne ci xeetu arab la bokk te bokkuñu ci bani Israel te ñooñu soo ko waxaatee da nga naan Huud la woon ak Saalax ak Shuaybu ak Seydina Muhammadin alayhi salaatu waaye am na sax ay bindkat yu wax ne yenente bu nekk arab daal seydina muhammad rek la alayhi salaatu wasalaam waaye ñooñu itam ci alquran lañ ko déggee rek am na ñetti aaye ci alquran yu yuy junjal ko niru waaye ma indi ci benn rek li tunzira qawman li tunzira qawman maa undira abaahum fahum gaafiluun wala boog maa ataahum min nadiri min qablik laallahum yahtaduun man da daal ñetti ay yoo xam ne loolu lay niru yow yonent bi dañ laa yónni nga ndax nga waar xawmu muy aw nit ñoo xam ne mësul leen a dikkal ab yonent ci lu la jiitu loola am ñu ca dëgg ne kon qawmiya al arabiya lay wax ne mësuñoo am yónninte lu mooy ci seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam wante ci tafsir al masuur al jumhur ci ulama tafsir ñoom dañ ne déeréet xawmu mooy firi lu bari xawmu dana firi ak giirug lëmm ñépp ñu bokk deret aku làkk dana firi xawmu waaye xawmu dana firi rek ñi bokk aw sant bokk géño te boo jàngee adabul bi daa ko gis waa ji nee na wan inna qawmi tajammacu wa li qatli taxaddasu la ubaali bi jamcihim kullu jamcin muannas te looloo boobu jubluwu ca ñëpp ñu dëkkoon ci réew ma waaye xaw mu mooy ñamu bokkal rek la woon kon loolu xaw mu dafa bari lu muy tekki amma xaw mu yàlla arabiya tam loola ñu ngi ci jublu ñëpp ñi nga xam ne ñooy làkk arab waaye loolu itam mën naa jàppale ne ndax ada arab ñaar la am na arab am na mustaarib arab yi nga xam ne ndey arab bay arab ñu nampa ko maam arab ak ñoo xam ne démb ajam la lañu woon waaye léegi arab lañu min xay su làkk di ko wax ñuy mustaaribuun waaye boo sax ma bokk ci Oustaz Assane Diouf bokk ci ak ak Babacar ak keneen ak keneen ñëpp mën na leen tuddee al mustaaribuun ndax xam nga arab dafa dem ba nekkatul deret dafa dem ba aw làkk la aku jàng dafa dem ba euh, culture la ak xam am na ñoo xam ne wax nañ ne nàmp nañ ko seen deret la te fekk sax dégguñ làkk yi am na ñu leen ko gën a dégg gën a jëriñ arab te ñoom duñu arab duma jël misaal ci Oustaz Assane Diouf wala Babacar Niang wala man waaye damay jël exemple ci al imaamul Buxaari al imaamul Buxaari radiyallahu anhu ku ne xam ne ne du arab gis la dëkk waaye gis nga li mu dajale muy bu Buxaari te lépp di arab mu jàng arab lakk arab wax ko ba mën a dajale saxiix ba lancé défi ci kanam arab ya kon loolu moo tax buñ ne arab dafay dal di yaatu wa ala kulli xaal li nga xam ne mooy masuur ci tafsir daal mooy ñeenti yonent daal arab lañ tegtal bi moo di ne yàlla moo wax ne mësumaa yónni benn yónent illaa bi lisaani qawmi ma arsalnaa min rasulin illaa bi lisaani qawmi mosumaa yónni kenn lu mooy ca làmme ñu nitam ña te ñu gis ne Hóod de foofu mu dëkkoon ay arab lañ mooy xawmu aad ñu dëkk ca laxqaaf ca rimaalu saxra muy saxraawul yéman gis na yonte yàlla saalax ñu ngi ko yónnee woon ca Samuda te Samuda ma ngi ci Arabie Saoudite muy Hijaz nekk diggante Madinatul war ak frontière yi Syrie muy asaabul xijari kon Shuaybu itam bu ñëwee ñu yónni ko ci Madian te Madian benn capitale la ci Cham boo xam ne ma nga nekkoon diggante Hijaz ak Jordanie wala sax genn wàll gi yëpp ci Jordanie la ci Urdun la ndax ma nga ma nga jege lool bu xayratu lóot nga gis ne ñooñu itam ay arab lañ te yàlla du yéen yónni kenn lu mooy ay bokkam la fa yónni kon liy tegtal la ci tafsir ne kon ñii ay arab lañ ndax ñu ngi leen yónni woon ci ay arab kon kooku moo di Shuaybu alayhi salaatu wassalaam ci ñooñu lay askano Madyan nag dëkk ba ñu ngi ko tuddee benn waay bu tuddoon yenn ibnu Ibrahim al Khalil am na ñu wax ni Madyan euh, dàkkante la ci euh, doomi Ibrahim al Khalil nee nañ nag waaye waa Madyan yi ab capital la woon ñu dëkkoon fii daal euh, ay commerçant lañ ay jaayekat ki jëndkat yu bari lañ te xam nga taarix moom dafa sew te yaatu ñu bari dañu xamalutoon Ibrahima lu mooy Ishaq ak Ismaïl waaye ndekk histoire ngi naan aha am na doom bu ñu naan Madian ibnu Ibrahima al Xalil waaye ñii ay jula lañu woon jaaykat ak jëndkat ñoom waa Madian seen dëkk bii di Madian ak Carrefour la woon nekkoon multaqa turuq wal qawaafil ci Cham diggante Cham ak Xijaaz ak Yaman ñii dañuy jóge Cham ñëw fa ñii jóge Hijaz Saudiya ñëw fa ñii jóge Yaman ñëw fa kon Carrefour la woon moo taxoon mu nekk capital commercial bu rëy moom Madiane waaye nag ñi fa dëkkoon waa Yaman waa Madiane gëmuñu woon yàlla ay xërëm lañu amoon di ko di ko jaamu a ah, jaay ak nag dañ daan lekk riba di lekk alal alal nit ñi ci ci ci neen bu ñuy natt di jënd dañuy yaatal nattukaay bi jënd bu ñuy jaay nag ñu xatal ko jaay suñuy peese di jënd ñu yàq baskil ba muy jël lu bari waaye bu ñuy jaay ñu daal di ko yàq ba du joxe lu bari seen jaay ak seen jënd daal noonu lañ ci daan def loolu moo taxoon yàlla yónni ci ñoom benn yónninte bu mbokk ci ñoom di arab nekk ordonné pur nag mu di Shuayb ndax bu ñëwee mu digal leen ak mandute mu digal leen ragal yàlla te mu tere leen mooy yàlla mu wattandiku leen mu jëkk mooy yàlla ak tooñ ak lekkaale li jàmbur ci caaxaan kon mu ngi mel ni moom Shuaybu bu la mu làbbiir mu yiw waaye ku amoon kóolute la daawut wor mësul leen a forcé ci dara lu mooy seen njëriñe ca nekk loolu alquran moo ñu ko wax moo tax mu ne seen mbokk mu baax mu labbiir muy Shuaybu laa yónni woon ci waa Madiyan te ba mu ñëwee gàttañ lu wut daana leen wax ni jaamu leen yàlla bay jaamu xiram man de yàlla xamal dama waaye xamaluma leen nag beneen yàlla bu may yàlla mi leen bind amaa ni ngeen di jëflante ci seen biir di wàññi ay nattukaay bu ngeen di jaay di ko yokk bu ngeen di jënd bu ngeen di peese it yàq yàq peesekaay bi su ngeen di jënd su ngeen di jaay yàqaat ko na ngeen bàyyi loolu te bu leen wàññi nattukaay ak peesukaay da leen ko def ci maam bu leen wàññi nit ñi bu leen leen wàññil seen mbir yi te bu leen yàq suuf si yàq suuf si yi naxaatee lekk alali jaamur ci baatal li nga xam ne moom la yàlla desal ci kaw suuf si mooy booy jaayee jëndee di ci am bénéfice loolu yàlla desal ci bénéfice bi ngeen lekk ko moo gën ngeen nax nit ñi fekkee gëm ngeen yàlla man nag wax dëgg yónniwuñ ma pour ma nekk gendarme wala alkaati di leen contrôler taxaw di leen sàmm man daal dañuy yéen rek ma laayee leen biir wax leen bu ngeen di dégg loolu alquran moo ñu ko wax ma ci suratu Hud wa ila madyana axaahum shuayba qaala ya qawmi ubudu ma lakum min ilahin gayruh ولا تنقصوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ muy 84 ci soratu Hud wante yàlla yent yàlla Shuayb gaaw na ba muy jeexal waxam rek di leen waar di leen jéem a jubbanti ñoom ñu gaawtu jëm ci di ko ji di ko reetaan di ko sabote ne ko ñun dey xam nañ dëgg ne kon sa ñaan yeeg yi ngay ngunum ngunumee di jàng ak sa julli yu bari yile kon ndeke moo la digal yii moo la digal sax bee nga àgg ci yi suñ bàyyeeg maam yi doon jaamu nga ne nañ ko bàyyi waaye Shuayb moom a ngi topp rek di leen wax naan yéen samaw nit waay waay bañ ma ak bëgg wuuteeg man bu mu leen indi ci ngeen di dëng ak ngeen nekk yéefar na ngeen li ngeen defoon te dellu jëm ci yàlla te sàkku ci moom njéggalam lii dee li Shuayb wax alquran noonu la ko waxee qaalu yaa Shuayb asalawaatika taamuruka an natruka ma ma yacbudu aabauna aw an nafcala fi amwaalina man nasha innaka anta alxalimu rachid yaa neex na yow sa julli yu bari yi nekke doo ca yem da ngay mujj naan seen alal bu leen ci def nangam ak ki nangam ala ya qaw araytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani min rizqan xasanan wa ma uridu an uxaalifakum illa ma anhaakum an in uridu ila al islaax ma statactu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ya qawmi laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mislu ma asaaba qawma nuux aw qawmu huud aw qawm saalax wa maa qawmu luutin minkum bi baid wastaxfiru rabbakum suma tuuba ilayhi inna rabbi rahimun waduud ba tey 87 la suratu Huud ah lii nag wax ko léegi ci wolof aaya bi wax ko Shuaybu ba mu waxee lii fan la mu jëkk nit ña dañoo tàmbali nag di ko xupp nag di ko tiital naan ko alku daal moo lay jot léegi ñu ne ko yow daal li ngay wax nii boo ko baywut li ngay digle boo ko baywut li nga ñuy teree boo ko baywut fi ngay mujj ak ñun ñooy dañ lay sànni ay doj dàq la génnee la ci saw nit ah loolu moo tax loolu moo tax ñoom ñu gëdd ko ba naan walla sax ñu far la rey ñu ne ko yow daal bu fekkoon ne ah bu fekkoon ne danga am giir goo xam ne gu tedd la wala sax boog ah bu fekkoon du sa giir gu tedd gii bu fekkoon du wut sa bokk gi ngeen bokk ak ñun a ah, bokk gi lañu rus de ak giir gi waaye nekkoon nu def la lu bon mu ne leen mooy mooy yéen sama giir gi moo ëpp orma yàlla mi ma leen di woo da ngeen a waroon a wax ne bu fekkoon du yàlla mi ñuy woo ndax sama giir gi waat ëpp or ma yàlla mi may woote jëme ci moom ndax giir gi loolu moo tax ngeen bàyyi dénkaani yàlla yi te sama borom de xam na lu nekk te ku nekk yàlla dana la fay sa jëf ëllëg te bu ngeen sàgg sàgganee alku yéen ci yéen lay mujj si gannaaw loolu rek ci la mbir jóge fa yàlla di teg ci ne yàlla di leen di alag léegi muy pay ak seen jëf ji am nga ba leen yàlla alagee du coxar waaye da leen di fay lu toll ni seen jëf ji gis nga mbugal bu ko yàlla teget jàmm bu kenn yaakaar ne yàlla yàlla ni baaxe baaxee waru koo def ndax yàlla soxorul soxorul waaye dafay indi jazaan wifaqan ak pay gu dëppoo jëfi jàmm bala loolu moo tax ki yàlla jox aljanna ak yërmande kooku moom duwul ne yàlla daf koo jox pay gu dëppoog la mu doon jëf kon ku jaamu yàlla fanweeri at boo dugg yàlla jànn fanweeri at mu jeex waaye kii yàlla di fay lu baax moom dalay fay pay goo xam ne dalaa mayaale muy ataan xisaaban waaye ki def lu bon nag yàlla ci maandoom daf lay jox jazaan wifaaqan pay gu dëppoo ni nga mel ak nga def mbokk yi ñuy déglu Shuayb nag nii la defa ak gaayam ya fii la mujj gannaaw ga nag ba mbugal ma ñëwee ah te moyoon nañ ko yàlla day musal na Shuayb mu de mi nekkoon ca la ko war loolu mën nga caa jàngee loolu ku nekk ci lu la war lu metti lu ñëwit nga mucc ci ak ñëpp ñi nga xam ne gëmoon nañ mucc nañ ah, ñi ko toppoon loolu yërmande yàlla xeetu alku bi yàlla alak nitu Shuayb mbugal la mu metti ak manu la dënnu la coow la ak xàccu la gu tar ak rëng-rëng la boo xam ne ba mu rëng-rëngee ñëm ñëpp dañ koo dégg seen nopp dal di buddeeku tëx ñu dal di daanu dee mel mel ni ñu ñu nërmeel seen mbir jeex seeni màndarga sax yàlla da ko faraale daanaka dara desatu fa loolu yëpp moom la alquran noonu la ko wax qaala almalaa'u alladina istakbaru min qawmihi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعدن في ملتنا قال أولو كنا كارهين noonu la ko nettalee muy 88 suratul araf waaye ak li ko yàlla wax naan qaalu yaa Shuayb ñu ne ko maa nafqahu katiiran mimmaa taquul wa innaa la naraaka fiinaa daciifan walaw laa rahtuka la rajamnaak wa maa anta bi aziiz qaala yaa qawm arahtii aazzu alaykum min allah wattaxadtumuhu waraakum zahriyan inna rabbi bi ma taamaluuna muxiit kooku 91 la ma ngi ci Huud alku bi nga xam ne xamu Shuayb bu alku nañ ko fii fii nii la ko yàlla tuddi ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وآية 94 سورة هود بتي وهكذا أيها المسلمون وهكذا أيها المستمعون الكرام أيها المستمعين وأيها المستمعون الكرام وهكذا نظر شعيب إلى ما حمله في قومه من العقاب والهلاك nii la Shuayb xoolee la jëm ci nitam ña ci alku ak lu bon mu dëddu nag xol ba neexatut ku nekk ak say bokk waar leen ci dëgg ñu bañ nga seen mbugal ñëw ci ñoom wala ñëw na ci ñoom ba pare du la neex nag moo daal dina leen ah man de yàlla dama yónni woon rek jottali naa yónent gi laabe naa leen biir waaye yéen réer moo leen gënal am njub moo tax daal du ma tiit ci seen mbir mukk du ma jàq ci seen ak alku ndax yéen ay yéefir ngeen loolu noonu la ko alquran nettale fa tawalla anhum wa qaal yaa qaw laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasaxtu lakum fa kayfa asa ala qawmin kafirin ba tey 93 la waaye ñu ngi ci suratu laaraf Shuaybu ab yonent la woon waaye yonentam ñeneen la itam ndax bi nitu bu ya alkoo dong yi loolu lu mat a xam la dugub ne rek nit ñi dañoo al rek mbiram jeex te loolu daana am ab yonente waxtu wuñ ko yónnee bu ñu tam ñu al wala bu ñuy jeexee nit mbiram da ci daan jeex waaye loola nag tey dana xarbaax dana utteeg Shuaybu moom mbiram dafa wéy waaye fan la mbiram wéy ak ci ñan lañ ko yónniwaat ah, ca kanam tuuti ñu dellu si ci wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina wa rasulina muhammad ibni abdillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli alayhi wa barik alayhi allahuma salli alayhi wa barik alayhi salaatan taftax lana biha abwaaba rida walxayra wa taysir وتغلق عن بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة اللهم اجعل صلاة علينا صلاتنا عليه مقبولة لا مردودة إلينا واجعل دعواتنا مستجابة اللهم اجعل مشاكلنا محلولة وبصفة مرضية وسريعة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين mbokk yi ñuy déglu tey déglu rajo Walfadjri FM 99 te kaddu gi nag di bàyyi ko fii ci Sacré kër ci Ndakaaru noo gi ñëwaat di leen nuyuwaat beneen ndax nayoo warul doy boo duggee nuyool boo génnee nuyool boo duggaatee nuyool ndax jàmm rek la ñuy ñaanante kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ndeke yonteelu Shuaybu ah, dongo yi ak ñi toppatoo histoire lu jar a li nga xamoon ne mooy sunu si yàlla caay ay ko moo di yonent bu ñuy yónni su fekkee ne ay nitam dee nañ wala ñu alku moom it mbiram day jeex benn mu dee walla mu toxu wala leneentam tam loola nag amul ci Shuayb Shuayb Madyan lañ ko yónni woon waaye ba ñooñu alkoo yëpp yàlla yónniwaat na ko yoonu ñaareel ne ko sa mission jeexut yow na nga dem fa ñële ñuy tuddee ay aykat yi kon asxaabul aykat yi ñoo nitu Shuaybu ya waxoon na fale ila Madyan axaawum Shuayban waaye yónni nañ ko itam ci asxaabul aykat kon bul yaakaar ne benn risaala la ñaar bañ ko yónnee Madyan ñooñu alku nañ waaye dañ koy yónniwaat ci asaabul aykat yi luy kë mooy waa gol ba lana dib gol mooy garab yu bari ay mandi réew moo xam ne dafa bari ay garab dafa naat ba garab ya dañuy laxasoo ca kaw garab gi day màgg gële màgg ñu laxasoo ca kaw loolu moo di ay aykat nit ña dëkkoon foofu bañ tuddee leen waa gol ba ñoo ñooy asaabul aykat yi dafa soriwul Madian nag torop ci Cham la ba tey rek soriwul Madian wax naa leen ne Cham buñ ko waxee yashmalu Palestine wal Urdun ak li ñuy tuddee Israël tey ci Palestine rek la ak euh, Suria ak euh, Liban loolu yëpp moo tuddoon Cham muy Chamul Kabir amoon na sax ci arab yi ñuy gént delloo si Cham gu mag gi yëpp benn état la woon mel na réew la woon léegi nag Suria Syrie ñoom rek ñoo des ñoo di desee insiraat kalimatu Sham ba jël seen capital muy Suria tuddee ko Sham kuy dem danaan maa nga jëm Sham te moo di seen capital ba muy Dimashq léegi moom lañ tuddee Sham waaye loolu yëpp moo doon Sham donte capital ba moo doon Dimashq itam kon nag si itam ci Sham rek la ndax ci Jordani la mu ngi ci Cham te sorewul sax Madian benn béréb la woon boo xam ne bu naat la boo am ay garab yu sëq na waaye garab yu bari ay meññeent lool kon ay xéewal la ñooñu amoon mooy réew mu naat mu am ay xéewal xam nga ay réew réew bu ñu amee mbay bu ñu amee garab réew bu ñu amee ay meññeent réew bu ñu amee ndox loola xéewal la goo xam ne mooy premier xéewal tax na ba réew mu nekk waroon nañu dox jëm ci ut réew mu naat naat am ñax naat ay garab bari am ndox boo gisee lu ñu sonal euh, ñun pays yi nekk ci wetu Sahara mooy ndox moo manqué rek wa jaal naa min al maa'i kull shay'in lépp luy dund rek ci ndox lay dundee moo tax fu la gën a bari ndox moo la ëpp naataan gis nga réew yi nga xam ne euh, duwalul waaqia euh, fi muhiit euh, baxrul abyadul mutawasit ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci mbalkam méditerranée nga xam ne mën nga wax ne Maroc ngi ci Algérie ngi ci ci benn boor bi ñoom ñoo dëkkee ci boor bi nii waaye ci bale boor Italie ngi ci France ngi ci pays Europe yu bari ñu ngi ci gis nga dañuy tawlu gis nga seen ab taw xaw naa mën a nekk juróom-ñeenti weer ñu di ko am ndox daanaka li ñuy am ak seen li ñetti weer la léeg-léeg sax du ko mat te yu ci bari bu ñu amee bu tawee di se ko sedd sedd ba bu defee glace ci xeer yi ko Maroc nga xam ne jibalul atlas tey euh, atlasul kabir atlasul saxir atlasul mutawasit nga xam ne ay xur yu bare ci jóge waa waadi ziiz waadi waa waadi sabu waadi raqraq tur yooyu nga xam ne ma ngi jógee ci jibaalul atlas bu glace gi seeyee mu nekkam ndox yoon ba hunaaka daw traversé si Maroc yëpp di sotti ji ci muxiit yi di sotti ci abyadul mutawassit loolu naataange la indi ci réew mi fu mu romb yëpp dañuy tànq di arrosé di naan di defar kon nag réew bu fekkee am na ndox rek naataange ñëw na bu amul ndox rek coono dikk bu fekkee ñu mel ni na nga xam ne lu nit ñi naan rek day të ñee teen bi léeg-léeg mu dëy mu yàqu bu dëy mooy bu manqué ndox waaye du bu dëy mais day day day manqué teen bi day yàqu te bu ñii am forage dajut ak li muy bari bari forage yu bari nag wax dëgg mi defaat defagum nañ ko fi waaye am na ñu amagum forage yu ñu am itam pour équiper ko fexe itam ba machine ba du paan wala bu paan yi ñu mën koo jagal ci lu gaaw loolu itam xaw nañoo të kon loolu yëpp ci li freiné développement bi la moo tax mbokk yi xeex ñàkk dañ koy wax rek waaye yàlla rëggal nañu plan lislaam rëggal nañu plan boo xam ne mooy xeex ak mooy wut ndox fexe ba am ndox rek wa jaal naa minal maa'i kulli shay hayy nga euh, plan bi alquran l'islam rëdd ko pour développement rural mooy wut ndox d'abord wut ndox te développement foo ko waxee rek Malik bi Nabi wax na ko ci téeréem nee na mu muaadala la yéen ñi xam mathématique su ngeen ko bindee su ngeen waxee ne nit plus ndox plus suuf plus yëngatu égal développement développement mu mënul am te ndox ak suuf ak effort aw ñaq ak yëngu duñ ko wuute loolu mooy développement tanmiya mooy al insaan zaid ma zaid turab zaid xaraka yusawi tanmiya kon loolu développement la ñu nag am nañ développement da ci am boo xam ne naturel la ñooñu dëkk ci xawdu yooyu wala jibal yooyu wala ndox yooyu kooku développement naturel leen yàlla jox seen mawqiwal géographie seen euh, nekkuwaay ci géographiquement fi ñu ne la yàlla def muy béréb buy taw waaye Afrique bu jegee Sahara yi nga xam ne Sahara yi day wowal rek di lekk beeñ pour defaraat ko fokk wut ndox lay doon ak sàkku ko fokk ñu tànq dex yi tasaare ko fokk ñu gas forage yi waaye am na loo xam ne ci développement junjoon naa ko ci sama waxtaan yi weesu muy plan directeur ba nga xam ne moom la reine de Saba defoon Yamin Balqis ñu defoon ko ca Yemen ca Saba la reine de Saba ca sabay ak plan bi nga xam ne itam euh, alquran daf ñu koy wax moo di ne déeg yi ak xasarnde yi ak xur yu dee yi dex yi woon yëpp rawaate na même boo seetan ndakaaru fi ay dexaa ngi fi wala ñu jéem a dekkal dex yooyu euh, defar ko dal di simante li ko wër fexe ba muy gën a mën di jël ndox léegi ñun ñoo ngi leen di commencé di leen fatt far nit ñi di ko dëkkee nañ dëkkee ailleurs te bay dex yi ndax dex yi dafa am muy jëriñ dex yi nekk itam ci bitti ci bitti dëkk bi notamment Saloum ba Fuuta ay dex ak ay déeg yi bëgg a dee ba ci Jolof bu ñu bu ñu ko gasaatee simante digg bi yaatal ko defal ko yoon bul ci sonn baal yàlla rek bu tawee rek mu feesal ko dell la ñu téye ndox ma dal ko fa baare barrage yango loolu yëpp ci développement réew mi nag naturellement muy waa aykat yi naturellement fii ñu dëkkoon euh, dafa am ndox moo xam ne naturellement dafa nekk moo tax suuf su naat la woon ay garab la woon yu sëq yoo xam ne day meññ lool choix yi bu ne leen man de yàllaa ma yónni ci yéen ndax ma jubal leen man nit laa ku ñu wóolu man duma war duma wuruj man nekkuma dara nag lu may xanaa ku ñu yónni may jottali liñ ma yónni waaye waaye toppaleen ma toppaleen ma ñu bokk topp ndigalal yàlla loola moo leen di musal ëllëg ci mbugal gis nga loolu mën nga ko jaay mën yooyu yëpp ci ñuy jàngatee la ñépp ñuy woote jëme ci yàlla nañu bàyyi seen xel ne dañuy jottali rek ku leen toppit na nga ànd ak ñi la topp ngeen topp yàlla te nañ leen xamal ne loolu moo leen di musal ëllëg ci mbugalam yàlla te it nga cay wut nag benn pay baal yàlla fay la rek eh, buñ la fayee yàlla du la fay suñu benn magu daara mu tàmbali woon di wax ci ay waxukaay di ci jàngal quran ñu ne ko lu ñu lay fay boobu yàgg na moo ngi tolloog ay 62 bi ñuy 61 62 bi ñuy dora am indépendant mu njëkk nag kooku rahmatulah ali eh, aw tudda aw tudda aw turam xatalul kenn ndax ku baax la alaaji xasan jaat ku baax la woon koo xam ne def na ci wax wax ci diine ak jàngal quran ci rajo daanaka moo ko fi njëkke woon ba mu paree ñu ne ko demal wàcc dem ci suuf jaar ci suuf ñu jox la sa cachet mu ne nu muy toll ñu wax ko ko mu ne déedéet ñu ne ko trente mille lañ lay jox mu ne yokk leen ci da ngeen ci yokk ay zéro yu bari ba mu nekk trois million ma jël ko su ngeen defee loolu duma ko jël ñu ñu ne ko ah loolu bari na di mu ne waaw ndax jàng naa alquran wax naa diine ci rajo ñu fay ma nañ ma fay lu bari ndax jar na ko bu loolu amut ngeen ba am na ku may fay lu bari muy yàlla waaye fay ma loo tal loo xam ne day mel ni fay nañ ma te kenn fayu ma ma ma daal di ñàkkee ca payug yàlla dara kenn loolu moo tax bépp daaiya war ngaa jiital ci li lay fay payug yàlla payug yàlla googu ngay jiital bu la keneen baaxee leneen nag ndax tëju ga nga tëju ak toog ga nga toog ba amoo beneen yëngu boo yëngu mu baaxee la loo dundee ay yax mu baax waaye yow daal bay xel ne yow daa yënga nga woote jëme ci yàlla yàlla moo lay fay loolu mën nga ko ci jàngatee te bu aaya bi ñëwee da nga ko ci dégg moo tax mu ne man de ah wutuma ak pay de sama pay daal maa ngi ko teg ci kii nga xam ne moo ma yónni ci yéen ah man li ma leen digal moo di ak maandute ak jub ci bu ngeen di natt ak bu ngeen di peese ay commerçant bu leen nax nit ñi bu leen wàññi droit nit ñi bu leen yàq suuf ci tooñ ak ak jeng wattaniku leen ëllëg yàlla buggal leen ak ni mu bugale woon xeet yu dëgër yi fi jaaroon ti jiitu leen te ñu buggal leen xam nga lu koy asaabul aykati tontoo wala dañ laa jabar ba nga dof yow daal yow du kenn rek nga ci ñun benn doom nga ci yi dëkk bi yow mbindeef nga kum ñun naka ngay ñëwee tey di woote naan yàlla lay yónni ñun xam nga lu xewaa li ñu li la teg rek mooy ne da ngay fen ndax yow boo dëggu woon ci li ngay woote yow yonent bi kon ah da sàkku ci yàlla wala bara ngaa mën ñaan ci yàlla muy wàcce eh, mbugal ci suñ kaw bu fekkee ne dëggu nga daal ñaan ko rek du yow la yàlla yónni la wax mu am waxal yàlla nañu bugal na mbugal wàcce asamaan léegi rek nu jeexal ñu Shuayb bu ne ko yàlla day xam na ne mun leen yàlla day xam na ne li ngeen di toggoo ci xeetu mooy yàlla lu garaaw waaye lu bari la yàlla xam na itam li ngeen yelloo ci xeetu mbugal ne lu metti la wante nag nekkul ci sama loxo man bi def daal di yéen nit laa rek di doomu dëkk bi di doomi réew mi maa ngi yéen a yem képp ci yàlla waaye li ma xam rek moo di ne mbugal yàlla am na ko te su ngeen continuer ci lii dana ko wàccee ci yéen ci waxtu woo xam ne su jotee du jaas mukk nag waaye saay bu jotu la jeexal waxam jaa lu mooy yàlla dal di indi mbugal ma yàlla xiir ci ñoom tàngaay boo xam ne tàngoor woo xam ne am na ñu tàngaay ñu ne tàngoor boo xam ne bu tar la ba mu tàngee ba kenn xajatu ci dëkk bi ñu ne nañu génn tabax yi génn dëkk bi dem ca bitti ca ron garab ya di sàkku ji ca ron xur ya di sàkku ji fu ñu noppalu ak ñu wut ngelaw foofu nag yàlla def lu mel ni teen ay yi ñëw ru ñul kukk nag dal di jaar seen diggante jant bi mu sedd def ko ca xur wa ndeke yàlla li mu bëgg mooy ñoom ñëpp ñu génn ba daje fenn ndax alal gi gën a yomb yàlla bëgg na ñëpp génn tabax yaag kër yaag néeg ya mu alag leen ca ndend ak léegi nag buñ ko séenee ñu naa lii de moom saxaabun moom turu na lii de aw niir la daf ñoo nar tawal ah lii de noflaay la ñu ne ñëw ñu toog ci xur wi ci ron niir wi ci ron keri garab yi le léegi nag ba ñu dajee ñoom ñëpp foofale kenn desul du gone du jigéen du mag du ndaw ñëpp dajee ci xurwa ci ron niir woowale yëguñ lu mooy ay jum di wàcc jublu safara yëguñ may ay dënn kura safara di wàcc ak i manu yoo xam di rey sa alag nii ma ko nettalee ci wolof nii la ko alquran nettalee ma liiral la aaya bi kaddaba ashaabul aykati id qaala lahum shuaybu alaa tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuun wa ma min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wa awfu alkayla wala takunu min almuxsirin wa zinu bilqistaas almustaqim wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taasaw fi lardi mufsidin wattaqu alladi xalaqakum waljibilata alawalin qaalu innama anta min almusaxarin وما أنت إلا بشر مثلنا وإن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون fa kaddabuuhu fa axadahum aadaabu yowmi dulla innahu kaana aadaabu yowmin aziim inna fi dalika la aaya wa maa kaana aktaruhum muminin wa inna rabbaka la huwa al azizu rahim muy 176 suratu Shuara mbokk yi ñuy déglu moo wax ne kon euh, li may tënk ci xissa bi lu bari la waaye tuuti laa ciy jël rek waaye man ngaa jàngee ci xissa bi li may wax si ndekkee nit warula waru ci alal ju ko yàlla jox nit ak wér bu ko yàlla joxe bul waru woppam ca wetam alal bu la ko yàlla joxe bul waru ñàkkam ci wetam daraja bu la ko yàlla joxee bul waru doyadee ngi ñëw aw yiw bu ko yàlla joxe bul waru ba bew ayam ca wetam xéewal bu ko yàlla joxe def ci li la war dimbale ci doom aadama yi yërëm ci fi yàlla yi xam nga ni ñëpp fi yàlla njabootam lañ ku gën a baax ci njaboot gii yow daal booy borom kër soo gënee ci sa njaboot yàlla gën ci yow yow daal booy chef de service liggéeyukaay nga gën ci sa njaboot yàlla gën ci yow yow daal booy borom ab dëkk nga baax ci waa dëkk ba yàlla gën ci yow yow daal booy boromam réew nga baax ca waa réew ma yàlla dal di baax ci yow ndax mbindeef yëpp euh, njabootu yàlla lañ noonu la ko yonent bi waxee alxalqu kulluhum iyaalullah fa ahabu xalqihi anfaa ilayhi li iyaalihi sallallahu alayhi wa kon loolu mën nga koy jàngatee waxuma jàngat mën nga koy jàngee ndax jàngat mooy nett li jàng nag mooy leçon booy jëlee ci mbir jàngat nag mooy nettali nga dégg ne daan ci jàngatee dañuy juum daan ci jàngee la ñuy wax jàngat mooy nettali jàngee nag mooy conclusion ak njëriñ la ngay jëlee ca lañ doon wax. moo tax ma ne loolu danañ ci jàngee lu bari moo dina doomu aadama itam kon maa ngi koy jeexal waaye maa ngi koy jeexalee ci ndeket doomu aadama waru la toog di yàkkamti bugalam yàlla. ku ne musiba ngi ñëw bu ko weddi ñaanal yàlla musal la ci rek te na xam ne yàlla moo noot ci kaw jaam yi wallahu taala aalam kon loolu moo di euh, yonente boobu alayhi salaatu wa salaam Shuaybu foofu la mbiram jeexe